nga am info yu leer ci people et sport politique Messieurs, dames, vous êtes amoureux de Feeling Dakar, la première scène people et politique business du Sénégal. Et quel plaisir de vous retrouver, vous, notre chers inconditionnels internautes qui nous suit un peu partout dans le monde entier, que ce soit Sud, Danemark, États-Unis, foofee ca France, Bruxelles, ñu ngi leen di bu baax baax. Et puis je m'en de Ziguinchor, Ziguinchor ñoom tamit bokk nañ ci fidèles internautes yi nga xam ne bëgg nañ ay programme yu Feeling Mame Marie et consort mais tamit bi ñu ca jógee euh, waxtu xibaar yi dafay ñëw bu jàppee li nga xam ni moom moo di 14 euh, ba jàpp li nga xam ni moom moo di 15 heures bu xibaar yi jàllee nag lépp lu jëm ci wax sa xalaat aussi euh, nga xam ni émission interactive lay doon yéen ak sunu ay journalistes yi nekk ci kër gi waaye tamit ba xibaar yi jeexee ay édition ak ay entretien spécial yi nga xam ne def nañ ko avec des politiciens waaye tamit ak des personnes yoo xam ne ñu ngi joxe seen xalaat ci taxawaayu réew mi programme bu Feeling Dakar programme bu a kooku nag moom mooy Ami Ndiaye Ndiaye Talla Bakar Kordo Albouri Ndiaye moom mooy sa maam waaye tamit di nuyu bu baax a baax notre très chère maman Peul VIP yi nga xam ne moom mooy GP VIP euh, bi euh, sénégalais yi jox bopp boo demee bitim réew képp ku am GP boo yónnee Sénégal euh, que ça soit France États-Unis Chine Japon da ngay contacter ki nga xam ne moom moo di Peul GP moom nag sunu yaay la moom mooy borom keppaaru Serigne Babacar Sy foofee ca Kër Massar di nuyu bu baax a baax gérante ba mu fa teg nga xam ne moom moo di doomam di Kaja mbokk xarit di l' émission Top Cas la plus suivie et de retour euh, tous les lundis et jeudis partir de 19h là il est 19h passé de 13 minutes y a Adji Mass sur le plateau l'une des des grandes chroniqueuses euh, na ay veram Mass Gueye def na bopp neenam di bandi banlu man mënu mënu ma ci moom dara réew mi jox nañ ko bopp lu ma ci mën ah, ah, ah yàlla baax na Adji Mass na nga def ah jaañ naar moo très cher frère sama rakk ji sama doom ji di la jaajëfal di la béggee delloo di bëggee bu baax baax euh, téléspectateur yi nga xamante ñoo topp Feeling Dakar euh, suba ba ngoon jot 24 heures sur 24 mm. waaye di waxati auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim santati yàlla sama borom bi julliti sang-sangam bi alayhi salaatu wasalaam waaye gërëmati samay ñaari waajur yu tedd ya mm-hmm. waaye santati sama sëriñ ba sama xarit ba sama wasila ba Cheikh Karim Mbacké borom dindi borom akaarim axlaa xam nga ni toujours nga ko jaay. 1 yére boo sol dong nga jaay ko 1 million 200. Euh, def ko vente aux enchères xale yi ñëw taxaw ku ñu ëppale li mu jaay ma ku ëppale li mu joxe ma ma jël ko. mais loolu ci tubaab maa ko indiwaat à ba ko Youssou Ndour defee maa ko indiwaat ci réew mi l'histoire ça se retiendra. yaa xaalis bi sur le coup nañ ma ko jox diggu foire. vidéo yaa ngi fi nañ ko dugal preuve. macha allah di ci jaajëfal nag mami Cobra di ci jaajëfal Mame Ndiaye Savon waaye yaa ngi tudd GP <laughs> bu baax waaw pël GP bi nga xamante ni fa tubaarikàlla moom ngay jox say bagage du la sa ndey ak a baax tubaarikàlla nee naa ko dañ la koy indil ci heure tegal la ko ci heure mm-hmm. mooy borom keppaaru sëriñ Babacar pour loo ko wax lu du Sidi Fa dem ba ma ca jawaar bakk rek dara maa rek adam loo kumba caama bu penn xëreer ba bi waaye jaajëfal Ami Ndiaye la présidente présidente nga xamante ni fa tubaarikàlla moo bëgg ndamu Feeling fi nga xamante innovation Feeling Dakar mm-hmm. Ndiaye Talla Bakar Koduma Sine ma Batoor Ndiaye fa tubaarikàlla jaajëfal naa la tubaarikàlla waaye sa nuyoo bëgg ñëpp waay <laughs> sacré Adji moom mënul ñàkk ci eh, topp ka ah, ah, day allier loolu tubaab di wax utile ak agréable Adji Mass moom ah, mbokk yi waaw c'est de la nouvelle génération messieurs dames vous savez mieux que moi Djimbory il est le monde veut avoir il est devenu le chroniqueur que tous les sites internet courent derrière lui euh, kooku nag du kenn ku dul Djimbory mi nga xam ni ay xalaatam rafet na ci réew mi waaye tamit idée yi muy joxe euh, ci bile topp ka euh, sénégalais yi ñu bëri nawloo ko mu bëri loolu ay soppe nag muy mag góor jigéen ah, ñawaat ci plateau bi ci jàmm ak salaam Jimbori moo naa la grand di la nuyu waaye la nga nuyu sénégalais yi lay seetaan maa ngi lay fay jaañ euh, naar di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan ñoom ñëpp mm. di leen ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla defal jàmm dem def fi ñu nekk jàmm mm-hmm. defal ñu ñun tamit fi ñu nekk jàmm ak salaam mm. di nuyu sama grand Abdou Aziz Silla bu baax xam di nuyu suma magi bopp aw mbub Mhm. xam nga di nuyu Ami Ndiaye bu groupe toppkaa ak ñoom Kalaris ak ñi nekk si groupe toppkaa bi yëpp. Mhm. di nuyu petit papa Amérique ma koy nuyu bu baax di sama waaju baax waay koo xam ne nii mën a def social. day jël ay 3 millions di ko dugal si hôpital yi. Mhm. wax dëgg yàlla di indi ay garab bëri na hôpital yu nekk fii moom moo indi garab ya fa nekk jox leen. di def social su ko neexoon mu tëdd Amérique petit papa. ak Pikine la dëkk. ñépp xam nañ ko ñu ngi koy nuyu bu baax moom petit papa di nuyu suma booy Habib Amérique soxna May suma jigéenu bopp Amérique di nuyu Aziz Kor mhm. suma xarit ak Abdou Kool Séeri Marème Diack mhm. maa ngi koy nuyu bu baax wax mhm. dëgg yàlla di nuyu ñi nga xam ne nii tamit dañ may béggee may nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu Aliou ñi ngi suma goro xam di nuyu képp ko xam ne nii yaa ngi may béggee daal. doo nuyu sa xarit Pël GP de sànq rek mi ngi Pël GP. Mm-hmm. xam nga maa ngi koy nuyu keppaaru Serigne Babacar Sy. waaw ah, waaw di GP bu wóor bu baax. di nuyu Kadja gérante bi fa nekk. waaw parce que boo demee Kër Massar. bala nga àgg virage guy gi. à droite la lay féete. xam na pël foo laajte pël GP. ñu wan la ko su fekkee da nga am looy yóbbulu te bëggoo mu luub bëggoo ko ko luubal jox ko pël GP mu yóbbul la ko. Mm-hmm. di nit ku baax. defal na jàmmam yàgg jox ñu 6 mètres gees ah pël bi pël bi barki sëñ Bamba ah, ah, ah, six mètres la ñu jox nañu wàcc leen ci màggal gi te aji maas nag maa ngi koy maa ngi koy xaar moom it bi nga xam ne dadi création waaw dadi création di nit ku baax nañu dinaa leen ñawal ñaw yu rafet solal leen ko dadi création mm. yàlla na la yàlla bàyyi foo toll di créer barki borom Tuubaa wax nga dëgg ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom i tamit daal création di ndaw nekk foofee ca uh, tëngee ci yor fa showroom bu mag a mag a mag waaye tamit di ñaw ñaw yu am solo di ñawal góor ak jigéen moom it bi ñu pël defalee teranga yi daf ñoo wax indi leen tissu yi maa koy ñaw gratuitement te loolu lépp wax dëgg yàlla Feeling Dakar moo ko tax te topp kaa moom moo tax Adji Mass gaawal gaaw nga dégganteeg uh, pël parce que moom da baax a a ayca gars kon on démarre l'émission messieurs dames parce que yéen ñëpp a ngi ñu doon xaar euh, li am ci toile bi bëri na man si reçu beaucoup de messages jaa ñaar lan ngeen xaar ci démarrer euh, parce que li ñuy dégg ci réseaux sociaux yi ñun yéen rek euh, la ñu ci wóolu yéen rek yéen ñu ci doy pour ngeen jox ñu ci lu wër te wóor moo tax on va démarrer ak li nga xam ni moom moo di am politique ku ne xam na ni la divorce de Barthélémy Dias et Ousmane Sonko ça crée encore beaucoup de polémique actuellement ça fait beaucoup de buzz sur la toile et ça coule ñii di wax naan Euh, diggante bi xas na ñaaw ba pare waaye dañoo gis euh, euh, jimboor yi ak ajimas ki nga xam ne moom moo di Barthélemy Dias mu taxaw ci la foofee ca TFM wax que ni kenn mënul wax a wax ba Ousmane Sonko du sama doomu ndey te si bii mu nekk man Barthélemy Dias man maa ko fay jëlee jimboor yi naka ngay jàngatee kàddu yooyu nga xam ni Barthélemy Dias wax na ko toog na ci télévision Futurs Médias mu ni man doomu ndey Ousmane Sonko laa problème amu ci te foofu mu nekk te si man maa ko fay jëlee. waaw xam nga euh, Barthélemy Dias su fekkente ne nee na moom doomu nday Ousmane Sonko la. xam naa ñeneen ñi moom bokk ñoog Sonko dara. waaw oui parce que xam nga Sonko. balaa balaa dasa dafa am ñoo xam ni. Mm-hmm. wax dëgg yàlla dañ cee ñàkk seen lu nekk. Mm-hmm. xam nga boo yamee ci wax rek. waaw wax dëgg yàlla ñooñu tamit dañuy gedd seen cër quoi. Mm-hmm. wax dëgg yàlla xam nga tey. wax bu waxee doomu nday Ousmane Sonko la. dafa waroon wax Ousmane Sonko man sa doomu ndayam laa encore. xamoo Sonko lépp lu ko waay defal da nga ko fay danga ko fay borom. Hmm. ku xam ne danga koy war a fay bor. Hmm. yaa ngi dégg. Hmm. fay bor bokkul ak maye. c'est vrai fay bor bokkul ak nga maye. parce que bu waxee doomu ndeyam laa foofu mu nekk maa ko fay génnee dafa mel ni yow danga koy may. fekk dafa la lebal bor xam nga nit nit ku nekk am na ruq mën a kanam soo si duggee waxtaan ak sa xel di nga xam kenn ku si nekk lan nga seqoon ak moom ak lan nga war a jëflante ak moom hmm. te dafa naa affaire Ousmane Sonko. Hmm. warul woon affaire ne warul woon nekk affaire wër di wax affaire wër di jëf la waroon a doon ci moom. mais moom ni mu waxee nii est-ce que c'est pas un peu trop tard. toog bañ dugal ko prison mu ne sama doomu ndey la maa ko fay génne. waa waaw xam nga tey yooyu yëpp ay affaire kii la xam nga man Barthélemy hmm. wax dëgg yàlla euh, su ma nee bettu ma. Hmm. Barthélemy bett na ma. nu mu la bettee. non nu mu ma bettee Barthélemy bi ma xamoon ak limi bi moo bokkul. bi bi Barthélemy ban Barthélemy. non Barthélemy bi ma xam. Hmm. Barthélemy bi mooy Barthélemy boo xam ne kenn xamul ban Barth la xam nga Barth. da nga daan sénégalais boo mës a yee guddi sax boo ko yee mu ne la ku dëggu la ku tàng la li mu nekk ku lu mu gëm la. Mm, mm. mais tey jii ñu demee ba nga xam ne nii mais ñun dañu xaw a fàtte parce que Barth fii la contre ab Ablaye Wade ba Ablaye Wade daanu. mu ñëw taxaw ni Ablaye Wade bi muy biñ ko fiy jëlee ñun ñoo doon manipuler noonu mais amoon na droit def troisième mandat moo ko wax ci télé de. nit di dégg. Mhm. kon suñu toogaatee ànd ak Ousmane Sonko ba mu neex leen temps yële ñu génn turam sax duñ ko tudd tey mu toogaat ne sama doomu ndey la fi mu nekk maa ko fay génnee. Mhm. wax dëgg yàlla na ko na ko fa génnee ba pare doo ko wax. mais mais mais mais ñi nekk Pastef ne nañ Barthélémy wax na ko arrêté parce que doonul lu mu gëm Ousmane Sonko du doomu ndayam parce que moom Barthé da ko trahir est-ce que waa Pastef ñoom it kàddu xam nga tey parce euh, euh, xam nga tey xam nga tey xam nga politique amul doomu nday moom wax na ko sax. kon day wax di weddi boppam. moom Barthé politique amul doomu nday mhm. politique gëm-gëm la. yaa ngi dégg. Mhm. kenn ku si nekk xam nga tey moom li mu wan sénégalais yi ba am yenn sénégalais yu ko topp. waaw Ousmane Sonko am li mu wan sénégalais yi ba sénégalais yi di ko topp Khalifa Sall li mu wan bañ ba sénégalais yi di ko topp. kenn ku si nekk bokkul ak sa moroom li nga wan li nga wane. Hmm. bokkuñu de li ñuy doxee. Hmm. ñoom ñëpp est-ce dañoo bokk ni ñuy doxee. non bu ñu bokkoon ni ñuy doxee est-ce que moom dina toog naan diw waxoon naa ko boo bàyyiwul lii mun mun nga ci am problème moo am na wala amut. Mm-hmm. bu toppoon li ma koy wax du dem fii may dem affaire yooyu te li nga ko doon wax léegi bi nga ko doon wax du yéen ñaar la ñun lu suñu yoon ba nga ñëw di ñu ko wax. Mm-hmm. bu dee waxoon nga ko sax. Mm-hmm. pour man bi muy bokk yeewi askan bi yeewi askan bi man ñoom vraiment yee yeewi li Dias la laa ko jàppee quoi. ah bon da nga jàpp ne projet bi Barth lañ bëggoon yeewi ci injustice bi ñu ko tegoon ne moom moo rey Ndiaga Diouf ak yooyu ak aussi li mu bëggoon doon maire bu Ndakaar ñu ne doog ko jox euh, ñu ñu xeex ba jox ko maire yi loolu mooy injustice non pour man yeewi Barthélémy Dias yeewi Khalifa Sall yeewi askan bi xam nga askan bi lañu waroon yeewi waaw léegi nag ñoom ñoom ñaar pour man hmm. ñoom tamit dañ dañ see yeewi waale seen bopp waaw waaw waaw am na yu ñu yeewi ci ñoom parce que tey hmm. Barthélémy hmm. PS la nekk. waaw du dëgg. su toogoon PS ndombal tànk bii mu am du ko am biir PS. waaw ndax du parce que PS moom duñ dañ ko dañ PS moom bokkul woon sax ci leader yi. Hmm. waa ah tey booy seet ñoom ndakaaru biñ nekk nii. Hmm. taxaw ndakaar boo wanee Khalifa Sall première. yaa ngi dégg hmm. comme Khalifa Sall première moo ko jëlee PS. da nga koy wàññi moom deuxième comme moom deuxième moo ko jëlee PS. ñoom seen hmm. bëgg a nekk première ak seen bëgg a nekk deuxième moo leen jëlee PS d'accord askan bi xeexal leen ñu ñëw fii ñu foog ne wax dëgg yàlla ñii suñ leen jàppalee ñun dinañ ñu jàppale ñu dem nekk ci leneen. est-ce que Barth newul di sympathie pour gañawaat këru Pastef waa Pastef. Euh, moo waral mu toog ci télé yi euh, di wax naan Sonko sama doomu nday la tafam nekk maa fa jëlee est-ce koy wax pour bëgg waa Pastef bëggaat ko delloo ko lañ lañ jëloon ci moom. ok mais dam lay wax benn affaire. waaw Barthélémy Dias est-ce que tey est-ce que Diagne est-ce que xam nga lan moo gën a ñaaw ci politiciens yi. ak nit ku xam ne dangay toog di wax ay nit di la déglu. lan la mooy nga toog ay nit di la déglu waxoo si diwlin bu seer bi. waxoo ci njàng mi waxoo ci feebar bañ a faju bi mm. waxoo ci lu lu nekk luyaas bu seer beeg yooyu lu dul toog ay junni junni nit di la déglu nga jëkkati sa làmmañ yow jëmale ko si sa si sa si sa nawle mm-hmm. Mm-hmm. est-ce loolu mooy politique mm-hmm. loolu du politique de li muy def nii pour man xasante la Hmm, parce que fat tey bu fi nekkoon naan maa ko fay jëlee du ma ko fa jëlee ba tey du loolu lañ seq ak moom liñ seq ak moom mooy ah ndakaarukat kat hmm. lii laa fi fekk hmm. dinaa fi liggéey nangam sama projet lii la ak sama projet lii la sama projet lii la est-ce que nekkul moom lu dëgg-dëggi wax ji loolu la ñu war a wax ak Barth su waxul ah. Barth su waxul waxu Sonko kenn ah. du ko déglu ah te bu dul Sonko kenn du ko kenn du ko invité dam lay wax li mu yow li mu wax si télé ba yëpp loo ci seppi laaj ma ko loo ma laaj li mu wax ci sonk rek nga ma laaj amul leneen loo ma laaj si moom kon moom bi mu doon dem tele ba mhm. kan kan Sonko moo taxoon muy dem tele ba xoola wax ko ne moom bokkul Pastef taxaw Dakar la bokk bu doon man maay moom te dem ci télé man ba mu jaral ma ma yàq samay nelaw bu dee guddi la bu dee bëccëg ma yàq sama dox su ma ñëwee toog damay wax ci lu ëmb suñu parti ak li ma nar ak li ñu nar moo gën a jaadu waxi Ousmane Sonko. Mhm. du noonu. waa waaw pour man loolu mooy sama gis-gis. si moom d'accord Adji Mass est-ce que du Barthélémy Dias ni Bougane Gueye taxawee euh, taxawaay bi mu am ci Sonko moom la waroon am rek récemment gis nañ Barthélémy euh, euh, ba kii Bougane Gueye dani mu ni Pastef bu ñu bàyyi. comme tas nañ seen parti nañ créer mouvement bu tudd mouvement Pastef ngir mën a bokk ci élection 2024 ah yi nii est-ce que du euh, euh, Bougane noonu muy taxawee noonu la Barthélémy Dias waroon taxawee ah ku ci nekk ak sa gis-gis ku ci nekk ak li nga xamante ni moom nga sentir ba tax na ngay def na la nam la neexee mhm. mais dama bëgg rek euh, tubaarikàlla so ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko instant bii ñu toll mhm. soxlawul li nga xamante ni moo di ay jaxase ak mélange mhm. nan bàyyi indi ay par parparloo fu wax warta am ñu indi fa wax fu seytaane warta am ñu indi fa seytaane fu jaxasoo warta am ñu indi fa li nga xamante ni moo di jaxasoo ndax ñoom ñëpp ñoo àndoon def seen coalition li nga xamante ni moo di yewi askan wi dem nañ ba moment moom taxaw na di wax yenn wax yoo xamante ni c'est à passer à côté mooy loolu buggaan ni mu toll la def borom mouvement gëm sa bopp fa la kooku tubaarikàlla ku ne xam na ni danga koy rey waaye doo ko rusloo ku ne xam na ni bu ngankee day dagg ku ne xam na ni du duggantu demi mesure day dem mbala mu génn benn yoon kon ku mel noonu tubaarikala ay waxi démbam mooy waxi tayam kon gàccal ko yombul tey tamit vaar ko yombul tey tamit wax dëgg yàlla xas ko yombul. Mhm. te nag ba nu ma tuddati batali bi. Mhm. nit ki dama bëgg chaque jour lépp looy diwoo de ko xeeñ waxtaan dëgg ca la nag gémmiñ boo xul dëgg wax naka sunu dëgg mais ci dama bëgg ñu protéger encore une fois ñi nga xamante ni ñooy Pastef ak Sonko nag gat sa gi fajul dara. am na benn moment boo xam ne buñ ci tollee. Mhm. mais Barthélemy mi ngi demee stratégie. stratégie bu mag lay demee. moom Sonko moom Barthélemy Dias dèjà mi ngi demee stratégie. pourquoi ñun waa Pastef fi duñ demee li nga xamante ne moo di stratégie. wala chaque jour ñun dañuy dañuy taxaw rek ñu xo ñu foog ni tout ce qui brille c'est de l'or y a des stratégies y nit ki ci boppam am na fenn foo xamante ni boo fa nekkee tekki woo fa dara jëriñoo fa dara boo fa jugee doo fa teg doo fa wàññi dara waxtaan dëgg ca la am na mbir fu muy toll foo xamante ne nii hmm. ñoom ci boppam ñoo war a couvrir ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko Ousmane Sonko wax yi dafa doy coow li dafa doy yàqalaate bi dafa doy mettre nit ñi en mal ak ñeneen dafa doy ci Sonko Sonko xam lan la soxla stabilité mu génn fële mu nekk ñëw bokku ci élection yi ci alxam ci bisimilah na rahim jël ko ci alhamdulilah rabil alamin ndam li sedd guy parce que defe naa ni. defe naa ni ku nekk ci pëndum teen. tal nga leen lu lu lu di tëbi Hmm. waxtaan dëgg ca la am na mbir fu muy nekk hmm. euh, nu tontee safara kenn du ci yokk li nga xamante ni moom moo di fa waxtaan dëgg ca la gina karaw gina karaw xar kenn du ci yokk li nga xamante ni moo di karaw am na mbir fu muy toll il faut apaiser apaiser bi du question da nga ragal du question danga nga da nga tàppet xamal la la dawal stratégie parce que mbiru politique ak mbiru showbiz nee naa la ñoo bokk ndey ak baay boo ci amul stratégie munoo cee munoo cee taxaw dem ci fu toll fii ak fii toujours fi nga toll ngay rester toujours à même lu leer laa lay wax affaire boo xamante ni affaire affaire dëmm sax ak gën a sedd. mooy lool ndax ay lekkante moo fa am ak yu ñaaw yoo xamante ne nii. moo tax stratégie la waa Pastef fii soxla. Mhm. damaa bëgg aussi à chaque fois ñuy apaiser li nga xamante ne moo di température bi mais day joué mais nañ joué. ku ne ni mi ngi joué mais nañ joué pourquoi ñuy bëgg a indi problème bu nu indi polémique bu nu indi noonoo bu nu indi dara de façon mooy que ni xam nañ fi mu jëm. xam nañ li mu nar xam nañ li nga xamante ni moo nekk ci xolam mhm. xam nañ fi mu jëm mais pourquoi ñun ñu bëgg a tëb ñëw ñëw tey passé à côté mais dañ koy topp li nga xamante ni moo di ci jeu am di jouer ak moom lu mu teg ñu teggi lu mu lal ñu lal li loolu mooy tax ñoom lu ñu bëgg nit nite lañ wax mais Barth est-ce woote mi ngi ci moom nee moom doomu ndeyu Ousmane Sonko la te fa mu nekk moom moo ko fay jëlee ci prison ba yow déggoo li ma la wax jànnaar ba tey dama xam nga Barth day ndaxte tey nga wax lii suba nga li sama maam waxoon ni ma maas ba ma ne ko naam mu ni ma ki la xas lëndi mardi mu gërëm la woo ko ba mu ñëw ni ko ñaari bu ci dëgg ndax diggante lëndi ak mardi bis doxul ci diggante bi léegi taxaw na wax lii tey bu subaa mu wax lee ginnaaw suba mu waxaale ginnaaw suba mu waxaatee kooku lan lay joué kooku lan lay joué mais nit ki stratégie lay joué léegi yow ci kaw stratégie boobu yow dañuy nekk ñun ay ay ñoo xamante ni tey jii mel nañu conscient wul mel ni ñu xamul politique mel ni ñu xalaat mais lan mooy problème bi day joué mais Barthélemy, tu veux venir soyez la bienvenue tu veux parler avec nous bienvenue parle avec nous xam nga di ko topp ci jiwam lu mu lal ñu lali lu mu teg ñu teggi loolu moom mooy xam ñu xool nag dafa lal piège loolu moom mooy xam ñu xam intention waaye tey jii xanaa xamoo nit ku ni tekk ak nit nga xamante ni moom dafa ëppal maa xam nga ni ku ni tekk moom moo koy moom moo koy gën a dégg parce que boo nee tekk da ngay tey te boo teyee kenn du la gaaw a daaneel moo tax du lu ñëpp ñëw rek xadar nañ koy fadee fii ñëpp mën a saaga ñëpp mën a def yëfu reewane ñëpp mën a def la leen saf mais am na mbir fu muy toll foo xamante ne nii tey boo jàkkaarloog sa noon di bëre ak moom di xeex ak moom mu leer na ne tey jii lu bëri arrangé wu ko mais ma ko mais am na loo nga xamante ne nii muy bëgg dima merloo chaque jour duma mer ni da ngay nite stratégie leen quoi stratégie nga koy toppee d'accord parce que nag Pastef nekk na loo xamante ne nekkul lu ndaw mhm. te dafa nekk ci xolu doomu aadama yi nit du ko ci gindi mais man xama lan laa lan laa bañ chaque instant rek ñu bëgg a fajee mbir mi xuloo wala coow wala Sonko Sonko ku ci nekk xam na ni Sonko du téye coupe bi ñu laaj ko jël pay waxtaan dëgg ca la liir yi doo ko judd sax ku ci ku ne ci iñee danaan Sonko kon yàlla moo ko defal li mu def ci xolu jaam yi mais mbir am na fenn fu mu toll foo xamante ni da ngay simmi nag sa mbubu bandi te terew da koy jiital. da nga koy jiital hmm. gi ne mbubu bii bi bu ma xamee ne chaque jour teint noir lay sol damay jiital mbubu multicolore ci biir di jël sama yére bandi teg ci kaw. kenn du ma xamal li xew te fekk na maa ngi lay naral lu doy waar ni da ngay am stratégie nit sànq amuloo bopp amoo xalaat ba pare amoo benn dal bii mhm. ba pare amoo benn apaisement bi munoo gañe nit ci dara d' accord ni da ngay muus. d' accord d' accord euh, euh, dégg naa ko mu wax aussi mu ni euh, Barthélemy Dias ci ay kàddoom yi ma for mu ni Ousmane Sonko li ko dal nii waroon na ko séentu te jotoon na ci ko junj moom mu wax que ni sénégalais yi li leen gën a métti ci seen àdduna moom mooy troisième mandat. ñoom mmh. bëgguñ benn président bu ko def. Mmh. mu junjoon ko ci moom ne ko xoolal bu baax sa engagement parce que bu Macky Sall ñëwee na bokkuma ci élection yu ñu jëm mmh. jeunes yi la toppoon yëpp dinañ wàññi. Mhm. parce que loolu leen nakar yi mhm. est-ce que du tamit Sonko moom it comprendre lu woon jeunes yi jàpp ni euh, mhm. moom lañ bëgg am personne c'est vrai mais aussi am na loo xam ne jeunes dañ koy défendre muy troisième mandat Sonko bi ñu gisee ni troisième mandat bi Macky Sall defu ko euh, bi ñu ko tëjee jeunes yi gis nga ñu yëngatu bariwul xam nga jaañaar euh, waaw dinaa la wax ci ñàkk yëngu bi lu bëri loo xam ne du bëri ku la ko wax wax ma ko lu tax gars yi toog yëngu-yëngu bi amut dinaa la ci wax dara comme yow wax nga ni Bart nee woon na ko. Mhm. gars yi bu fekkante ni kee nee na du def troisième mandat. Mhm. bu seen yi duñ génn xam nga gars yi lan la. Mhm. Pastef dafa am ay kàngam yu fa nekk kàngam yooyu nekk kilifa kenn bu ci musaan a génn tey dinga ànd ak ñaar fukki nit ci sa njaboot ñu génn. am na wala amut léegi yow boo doon. ak sa baay bu nekkee ci kër gi. Mhm. ne la man damay génn suba. mais diw laay dem soutenir. yow nga dem ba sa baay boobu nga xam ne moo daan génn ci kër gi ñu dugal ko ci roq. Mhm. da ngay tal sa baay wala dangay tal keneen ki. Hmm? sa baay nga léegi ñu gars yi doom yi waroon ñëw seen baay yi lañ téye ñu tal seen baay seetal li nekk ci ginnaaw seex Bara Ndiaye ñaata personne. bari tey jii ñoom. Ousmane Sonko tëj bi ñu tëj Ousmane Sonko naqari na leen trop mais Cheikh Bara tamit dafa am fu mu leen àgg terewul ñu bëgg Sonko. Mhm. léegi ñaata nit la ci Pastef am yoo xam ni ñu ngi ci biir kaso bi. kon nan kon nan la ñuy génnee nan li ma la wax nii kenn du la ko ci wax. moo moo tax génnuñu mais Barth li muy wax. loolu ah. teewul génneewut. tey ma ne. Hmm. ñi nga xam ne ñoo doon topp ci ginnaaw Ousmane Sonko. Hmm. ay kàngam yu xam ni bu kenn mësaan génn am lu ko nakar yi di nga gis vingt personnes génn topp ko ñaata nit ñoo ci nekk ci biir kaso bi. bari waa léegi ñooñu nekk ci biir kaso bi seen njaboot googu daan ànd ak ñoom kan lañ tal du seen seen bàyyi. seen bàyyi lañ tal tereewul ñu bëgg Sonko loolu mooy mbir mi. Hmm. c'est lu dul jàmm jàmm ko gën. man sa suis pas d' accord. ba pare ma wax la benn affaire. xoola kii. ndax nit ñi. kii non li leen tee kii li leen tee génn wala dinaa mos jóg rek dem. man damay wax non non dama lay wax. man damay wax li ma sant xoola wax nga ko mu wax ba pare. damay wax li ma sant xaaral xaaral ma wax kii daan naa waaw daan naa nekkuma di werante de. am na solo nekkuma di werante de. non xaaral du werante. wala ma wala benn affaire wala jaan dama lay wax benn affaire billahi la ilaha illa huwa nit ñi ñoo dépassé yéen yi sama yoon dégg nga lu ma la wax non dama lay expliquer eh, xam nga ma bëgg nit ñi dañoo dépassé yéen yi xam nga lu ma bëgg parce que nit ñi tollootuñu ci àdduna boo xamante da ngay taxaw di xiiroo ak a ŋaayoo taxaw ay doomu jàmbur di dee de gauche à droite nga taxaw sa biir tëdd di nelaw xam nga leen loo xamante ni jeunes yi dañoo conscient. d' accord terewul fii ñëpp ma bëgg Sonko. d' accord looloo tax waa c' est bon. xam nga lu ma bëgg xam lu ma bëgg ma wax la ko. ñun ñëpp benn lañ. c' est vrai lu ma la wax. day mhm. émission ñun ñëpp ñoo bokk émission bi. c' est émission bi lu koy doxal rek la ñuy def. am na loo xam ne boo ci d' accord damay wax. xaaral xaaral xaaral ay noon am na loo xam ne bu nekkoon ay noon du ñu fi indi am na loo xam te ne boo ko waxee d'accord ma dama la koy wax léegi léegi yow Adiomass boo d'accord ak moom waaw ah, kay ma jox la léegi nga xam ndax non woon ma ma wax la benn affaire benn xalaat bu may xalaat kii mënu ci teg virgule waaw man tamit sama xalaat mënoo ci teg ma barki Seexuna Ahmadal Tijaani su dul fii ñu daje kii duñ waruñu toog sax yow man yow laa war a toogal yow laa war a toogal. non xulóowu ma waaw mais mais dama yow góor ñëpp yàq nga leen. waaw dama lay dama lay wax rek dama lay wax rek. lu leer laa la wax yow maa la gën a sës. yow ku ñëw biir topp kaa yow yow yow yow gàkkal nga ko. ku ñëw yàq nga ko. waaye man maa lay të man gaynde gi. doo fexe ba wax lu ma arrangé wu te duma ci wax. adimaas fii ñëpp a bëgg a. adimaas kon du ma la kon du kon du ma man bu ma la defee doom jëlee du ma la fi indi. soxlawul lii du ma la fi indi kon bu ma Sonko nekkee soxlawul yéen yéen a gën a dugal Sonko. te Sonko defu dara adimaas téléspectateurs yi ñu ngi ñuy message sax naan ñu yéen seen dio bi euh, du lii lañ leen soxla li ngeen ko doon débuté noonu lañ leen soxla non non non xaaral ñaa xaar xaar booy du ma xuloo ak jigéen voilà lu leer laa lay a bokk idée voilà ma wax la xaaral ma wax la xaaral ma wax la xaaral ma wax la allez tuuti ma wax la topp kaa bii su ma ñëwul kenn du def topp kaa waaw bu la ci neexee. ma wax la ko non xaaral ma wax la waaw yow xoolal boo fi nekkee boo fi nekkul terewul ñu ngi tam ci télé yi nga yaa may tooñ léegi naan damaa yàq nit ak damaa nangam ajumaas man du ma yàq kenn ñëpp nga yàq yow bu ma defarul du ma la yàq kan yow man fan laa lay yàq ajumaas ajumaas damaa am soxla si yow yow mun tane ku kan moo ne la man damay taxaw di wax si yow man mii man ko ñemee loolu ci réew mi waaw mais kon kan laa yàq bala ñoo xamante ne ma attisé ma la benn affaire xoola yow xuloo nga ak ñëpp yow yow xuloo nga ak ñëpp yow yàq nga ñëpp Jimbori Jimbori Jimbori yow yàq nga góor yëpp Jimbori yow xuloo nga ak ñëpp Adima may tooñ de Jimbori may ma tuuti non may ma tuuti non may ma dama lay wax Sonko la nekk dama ciy wax non danga may dëgg Ousmane Sonko li ko dal xaaral kii dama koy expliquer benn affaire man ñëwuma fii pour fumister ñëwuma fii pour rambaaj ah, toppkaa ñaata at maa ngi daaw maa jël deuxième xoolal non dama lay wax man du ma werante ak jigéen leen foofu waay wax nga sa wax ma déglu la maa ngi wax bàyyil ba ma pare nga wax mais li ngay wax nii dafa ñaaw man du ma yàq ni ragal ma kenn yaa ngi dégg pour wax la ko sooy émission da xam ni ngay émission yee Adji Mass xam ni ma émission ma tax teg ma fi non Adji Mass mais bul ma bul ma tuumaal waaw loolu man kilifa laa man bul ma tuumaal yow yow sax nga tuumaal sa bopp naa comprend nga ni mu la bul ma tuumaal ba pare yi ah. ngay def nii li li ngay jigéen moo tax nga di ko def Jimbori s'il vous plaît est-ce que mun nañu ñëw. parce que sénégalais yi dama lay expliquer non xaaral ñu ngi ñuy wax ñu nekkaat si. non dama lay expliquer non am na yoo xam ne du ñaata at maa ngi fii kan mooma musa taxaw di ma wax wax bii. émission la te mën na ju aliment. keroog romb na ma naan ma saytaane nga toogaat di wax ay wax. non dama lay wax ajimaat nii nga mel yow. non dama lay wax rek. yow nii nga mel te lii yamale ko. man je n'ai peur de rien. je fais mon travail. yamaleel sa lii. doo ma arrêté. je fais mon travail yamaleel sa lii ngay defar sa bopp mel man la Adji Mass doo ma arrêté doo ma arrêté doo ma arrêté waaye dama lay wax xoolal waxalante ak jigéen du ma ko. waaw kay man am naa droit wax ci Sonko. waaw mais bul ma weddi. yaa ngi dégg nag Ousmane Sonko xamal lan la soxla. nit ku nga taxaw boo xamante ni dafa dafa taxaw nekk benn responsabilité loolu la soxla ndax fële mu nekk kenn yéenewu ko ko. kon bu ñuy wax nan apaiser température yi ah, dalal nit ñi mais pas taxaw di dem di ay feeru mélanger maa ko wax y a plus de 589 personnes qui nous suivent en qui nous suivent en temps réel te lii taxul ñu leen suivre yéen Topouka Adji Mass Djimbory si j'étais pas là yéen bu ngeen defee Topouka sax les Sénégalais vont vous regarder parce que y a ak Adji Mass comprendre nga yéen li ngeen di def nii ñun ñun ñun xamante ne su ma arrangé wul wax su ma arrangé wuy ma Adjma xaar xaar Adjma. man man yow laa waxal. man du ma noonu de les propos man du ma noonu de. c'est bon vas dama lay wax man duma noonu. waaw d'accord ñëw dama lay wax. mbindeef du ma yab. comprendre nga ni ma la wax ñëwuma fii pour xuloo gise xoola li ñu boole temps bu ndaw la man duma werante ak jigéen. la non ndax loo loo ma laaj loo ma laaj d'accord dama la laaj que ni boo ma laajee ndax aw ma droit wax suma xalaat kii mënul noppi si samay wax kon ni ma noppee si waxam Adjimass léegi noppil bàyyi ko ba wala loolu mënul nekk mais nga may xas quoi jëmale ci man allez vous avez la parole vas-y Jimbori allez-y allez-y bu ma la doon xaslu wala ma lay xeex du ma la fi indi maa la fi indi indi woo ma fi sama métier moo ma fi indi mën li may def ak Bamba indi woo ma fi indi woo ma fi yow mécontent nga indi woo ma fi gaay s'il vous plaît gaay bu leen dugg indi woo ma fi ah? tey mu leer yow yàq nga ñëpp eh, yow eh, ndey gay nga yàq wala ngoone mais man du ma ñoom damay liggéey dooma arrêté jimboor eh, yi man maa lay të barke Cheikh Abdoul Karim man mënuloo ma dara damay liggéey ay Adjimass Adjimass s'il vous plaît topp ka c'est pas pour daaw ngeen jël deuxième c'est pas une question de maa fi nekk au yi ba leen soyez tous les moom dinaa ko bàyyi mu continuer di def. non non non ko. xuloo après continuer dégg nga on continue on va respecter les nga def bi Adjma après ñu ñu ñu ñu dem. quoi continuer moom na def topp ka man Jimbori dootoo ma fi gis. loolu leer non dama lay wax lu leer xam nga man wax ma wax la benn affaire man duma ma xasante du ma saagante yaa ngi dégg kii maa ko ëpp public li muy def maa ko dàq du ma moroomu ñii d'accord du ma euh, moroomu euh, euh, ñii. ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi man du ma moroomu ñii. ñu ngi jégalu bu baax li mu ñëwee ba léegi nii lay saxoo quoi. jaajëf jaajëf ñu ngi ñu ngi merci kii réalisateur c'est c'est bon on est de retour sur le plateau on peut continuer l'émission euh, parce que c'est ça les aléas du direct c'est ça les aléas de l'émission Top Cas c'est pas pour rien euh, qu'on nous mais c'est bon il faut revenir voilà c'est pas pour rien qu'on nous a plébiscité le émission boo xam ni euh, ñu ngi ñuy ñu ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi jégalu bu baax a baax ci euh, internautes yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel xaaral ñu c'est bon baax na xaaral ñu continuer émission bu ma ne c'est bon xaaral ngay déglu wax la depuis bi mu ñëwee ba léegi nii lay commencer ay nisette ay lii laa man nekkuma ci yooyu jàppaluma la dara yal na la yàlla defal jàmm mais man yenn wax yi duma ko jël bi may ñëw fii biisu di ma fi indi newoon naa ko ay werante ak ay jigéen duma ko def si njëlbeen ga du dëgg Njaañ naat euh, ah. ñu ñëw ci mbiru Sonko bi. Ah, tubaarikàlla lu am sens la. xam ne euh, ak ñoom Awa ñoom ñëpp ñu ngi ñuy wax que ni euh, ñun yéen la suivre kon éviter leen di def lii ci plateau bi vraiment ay messages yu yu yu yu positif message yi ngeen bind ci commentaire yi na wax ki wax lu ñaaw. alors bu ma ko wax Djimbory ñu continuer ñu continuer émission bi. Ah. ñu continuer damay wax rek xam nga man yii dama ci nekkut quoi. man ay affaire yii nekkuma ci. d' accord on continue l' émission léegi ñu ngi woon ci kaawu Barthélémy Dias ak ak ak Ousmane Sonko euh, yaa ngi doon wax lan moo waral booy wàccoo ñu ci terrain bi. Euh, ah. foofu nga tolloon waaw. non li ma xam nga dama ne la. waaw dafa ne booy yi. Mhm. li li tax ñëwuñu nangam nangam ma ne li ma foog parce que kenn ku si nekk am nga sa kilifa bu nekk ci Ousmane Sonko boo xam ne ñi ngi ko téye. Mhm. am na wala mhm. balaa ngaa tal Ousmane Sonko dangay tal sa baay ba pare am na wala mhm. bëri na si ñoo xam ne fu mu toll nii kenn ku si nekk xoola mi ngi mel ni hôpital rek kenn ku si nekk am fa malaat mais kenn kenn ku si nekk yërëm nga sa moroom mais sa malaat nga tal waxal. Mm-hmm. mais man aw ma droit man ma wax suma xalaat quoi. bien sûr bien sûr. am na la moo la fi indi sax mais wax sa xalaat nga naan ma noo du dëgg du lii du laa man non vraiment dund naa ba tool nii jigéen mu suma yëpp. d' accord mais mais problème boobu noonu duñ du ñàkk dinañ ci ah, dinañ ci dinañ ci am solution parce que affaire euh, Barthélémy Diaz Ousmane moom nee dina ko génn si prison bi Pastef nag ñu bëri génn nañ dal ci kawam ne du moom moo ko génn si prison bi waaw ah, am nañ ci plein droit parce que du moo ko fa dugal ba di ko fa génne mhm. mais dama la bëgg a xamal ni la àddina mhm. nit buy jouer ak yow demal nga dem jouer ak moom mhm. xool plan yi mu lal waaw pexe yi mu lal ak ndigg sërx yi mu lal ba nga xamante ni di nga ci échappé wu ba doo ci dugg Ousmane Sonko ku ne xam na ni nekk gi mu nekk fële arrangé wul kenn. noon sa noon sax doo ko yéene fi nga xamante ne moom moo di prison. Mhm. tey li ñu war ñun waa Pastef d' abord. Mhm. tey jii moom mooy ñu nekk benn say. benn cay bi mooy que ni soxlawuñu koy jaxase suñu biir. Mhm. am naa ci plein droit. soxlawuñu seytaane. soxlawuñu rambaaj xam nga lan lañ soxla. ku apaiser les nerfs. xam nga lan lañ soxla. ku nga xamante ni nii tey jii ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko. dina génn ba ñëwaat à jour bis ñëw yàlla moom mooy tudd président. Mhm. mu nekk suñu président ñun loolu mooy suñu objectif. te defe naa ni xeex bi may xeex. Mhm. Pastef yi waa Pastef yi ñu ci bari. xeex boobu nañuy taxaw di xeex waxtaan dëgg ca la mais nit ki mënul nekk ci boyal ngay daw di yokk ay xal nit ki mënul nit ki kenn du yokk ci karaw mi xar waxtaan dëgg ca la am na leen loo xam te ni soxlaatuñu ko parce que dañoo manipuler manipuler ñu manipuler ñu manipuler ñu ba dugal ñu foo xamante ne nii tey jii ay wax kese duñu fa génne. kon bu ñu jël du ñu jël coow di ko teg ci kaw coow wala ñu jël wax di ko teg ci aw kaw wax wala di jambaaje nit ñoo xamante ne nii tey foofu réeroo waru fa am man lii laa ci war a wax. d' accord merci beaucoup 19h moom moo jot ba tegtal 46 minutes yéen ngi ñuy bàyyi xel fu ngeen mënti nekk ci àdduna bi rawatina les sénégalais de la diaspora ñu ngi leen nuyu baax baax ñoom itamit ay fidèle internet tu Feeling Dakar lañu euh, bu ñu wàccee liggéey wala bu ñu nekkee si métro bi ñëpp dañuy seetaan Feeling Dakar rawatina programme bi nga xam ne moom di euh, topp ka on continue ci euh, chapeau yi nga xam ne xalifa mu génn def benn benn benn communiqué je sais benn tweet ah, di wax que ni euh, coalition bi nga xam ne moom moo di yeewi askan wi amul ku ko ci mën a génne jimbori amul ku mën a génne euh, Khalifa Sall euh, ci boobee coalition parce que moom membre fondateur la euh, xalaat bi ak xel mi ci moom la jógee kon amul nit bu ko ci mën a génne te beneen bi ci des moom mooy nee na bu dee nit ñi dañ fa nekk di di di mere wala di ko mere bu ñu boom mere parce que moom ñoom moom defu leen dara li mu def bu doon tey mu defaat ko moom mooy dem wuy ji ci dialogue bi nga xam ni président woowoon na ko kàddu yooyu mu wax waa waa yeewi askan wi naka nga koy jàngatee. waaw xam nga moom bu fekkente ni si membre fondation yi la. Mhm. mais comme fo moom bi mu fo bi mu defee fondation ba pare. waaw lan la soxla woon du batiment waaw mais bu batiment bi demee nag. Mhm. waaw mais moom dañ ko ci dàq te nee na waruñ ko ci dàq. non dama ne. xam nga moom moo ko créé. waaw bi mu ko créé affaire bi mënul dem. waaw soo ko dugal ci loxoom affaire bi dem. Mhm. oui soo Sonko dool mooy suukar si nga jàpp. non ñoom ñëpp boo leen dajale woon tey ñoom ay kanti mu mburu lañ Sonko mooy soos bi moom la yàlla joxoon moom hmm. moom Ousmane Sonko wax dëgg yàlla mu affaire yëpp teg ko si loxoom nit ñi jox ko bopp ak xol ak xalaat mën naa la du dëgg ba pare eh, benn affaire am na gis nga yeewi askan bi hmm. bi ñuy ànd parewuñ est-ce que xam nga loolu comment ça parewuñu bi ñuy ànd parewuñu parce que yeewu askan bi diir bi mu juddoo ak taf-taf ni mu fi àndee. waaw parewuñ demoon nañ ba si euh, ñoom réunion yu bëri par appel vidéo lañ daan def. ak li ñu gagné ci local yëpp ak. ci yëpp yëpp parewuñ woon comme cent pour cent comme yeewu askan bi nu ñu comme yenn mouvement yi ni ñu daan war a paree carrément. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. en tout cas daal boo nekkee fenn nga mag fa. Mhm. nga toog ba mu yàgg naan kenn mënuma ma fee génnee. yaa ngi dégg génn nga ci. mais mais mais le mot kenn mënuma ma fee génnee. waaw moo la ci génnee yow. parce que yow bu fekkente ni dem nga ba yëg ni yow. Hmm. kenn mënula la cee génnee. kon yow da ngaa jàpp ni génnee nañ la. mais loo moom ah. la ci génne. bay jàpp ni loo moom ci génne bay jàpp ni génn waa xam nga tey parce que dafa am ñëw ne yow dàq nañ la ci tanga moom ko. waaw mais déedéet. xam nga tey moom moomu ko. ay mbooloo la yoo xam ne dañoo àndoon bokk benn xalaat. waaw bi ñu bokkee benn xalaat. seen xalaat yëpp ñan ñoo tax mu réussir askan bi. waaw bi ngeen waxtaanee ba pare. askan bi ngeen ñëw waxal. Mm-hmm. am na wala amul. bien askan bi topp seen ginnaaw fépp. après vraiment élection yi nekk élection ñoom fépp fu ñu voté gañe nañ fa. Sonko aussi daa di def bàyyi fa mu waroon campagne ku ciy campagne Sonko ñëw na sa gox da nga daan dégg wu si seen biir wool ma Sonko ndax ma gañe campagne waaw. am na wala amul. Mhm. waa léegi kon dama lay wax benn affaire. Mhm. léegi li liñ doon wax ñoom ba bi ñu àndee ba gagné. Mhm. moom léegi na xool ba xam loolu la ñu continuer di wax ba léegi wala dañoo changé wax. mais mais Jimboori da nga jàpp ni Yewwi Askan Wi bu ñu ko créé woon te Ousmane Sonko bokk ci lii ñu ci am yëpp ñoom duñ ko am. du ci am mais lu tax nag. non xaaral ay leader yu ah, ma nga ah, ci euh, euh, kooku sant si sunu sëriñ boobu sant si. waa doomu ah, déglu waaw ñu bëri ay kàngam waaw doomu déglu waaw. xam nga sëñ Moussa hmm, waaw sëñ Moussa euh, information yi ma déglu. Hmm. yaa ngi dégg Khalifa Sall moo dem wax ak moom. pour mu ñëw intégré. waaw c'est que pire. pire. Hmm. dafa am beneen méthode bu muy dox bu bokkul ba tey ak ni politique di demee. Hmm. waaw ñoom dafa am lu ñuy xeex ci réew mi lu bokkul ak ni politique di demee mais ñoom askan bi rek lañ àndal. du dëgg mais dama ne. Hmm. Khalifa Sall créé na ko te affaire bi doxul. bi Sonko ñëwee la waaw Sonko bi mu ñëwee ci la affaire bi gaaw ñu bari ñëw. Ah, après Sonko sax bi muy ñëw ci yeewi askan bi daanaka dégg na ci lu nekk ne ko yaa ni système bi ngay xeex ñii nga àndal waa système bi la après buggaan sax mu ne ko man duma ànd ak ñii parce que ñii waa système bi la te ñii euh, nga baal ma si wax bi euh, euh, xam nga ay booy dajalee li ñuy def affaire nitu guddi la tey jii li buggaan waxoon defe naa Sonko gis na ko ci feeñ a waaw daa mel ni feeñ na comprend ngi ni mu la wax mm. buggaan daa di def turu turu partem bi mooy gëm boppam dem parce que tey mbooloo bi ba am na si ñum baax mais ba tey gisaguñ mbooloo bi noonu mu baaxee ci ñoom ñi ñëw xam nga ñoom ñi ñëw biir yeewi askan bi yeewi askan bi baax na si ñoom parce que bi ñuy ñëw mhm. indiwuñ fa dara indiwuñ dara bi ñu ñëwee képp muy muy xalifa Sall muy Barthélemy Diaz mhm. bi ñu ñëwee si biir yeewi askan bi li ñu indi dañaa gañe nañ fa pilis waxal am nañ fa yokkute de ah. mais Ousmane Sonko yeewi askan bi lan la lan la lan la ko yokk gañe na ci mairie bu Ziguinchor am na ci ay non Ousmane sans askan bi Ousmane day gañe ah. xool li ñuulal ndobin mu gën a ñuul ndobin ku xam ne dafa ñëw sa gox nga gañe kooku mënul gagné goxom dem na ba nga xam ne campagne bi mu war a def moom pour boppam daf ko bàyyi topp leen ñoom ku su ku si waay nekk mu ñëw foofu nit ñi génn mu ne voteel leen kii kooku kooku mën ta gagné fële waxal. Mhm. mën ta gagné goxam sans yeewi askan bi Ousmane day gagné parce que nit yi liñ ko jox yaa ngi dégg dafa ëpp li muy laaj. en tout cas ñoom am nañ ci dara. am nañ problème de daa mel non xaaral xaaral xam nga yeewi askan bi fu mu toll nii. Hmm. sénégalais ñoo fi nekk rek ay yeewi askan bi dañ ànd ànduñu. dañoo hmm. toog tooguñu. dañuy dem demuñu mais xawla actuellement nii ma wax la benn affaire ñoom li ñuy wax lépp ci yeewi askan bi ak li ñu li ma foog ni dañ koy wax ci Sonko. waaw bu Sonko nekkoon ci biti benn tontu bu ko defee wax bi jeex na. ngay xuloo ku dul tontu dafa neex de. am na wala amul parce que gumba am na beneen métier bu dul wër di tëbi teen mhm. sonko fi mu nekk mhm. yaa ngi dégg fi mu nekk moom sonko mhm. defe naa ni foofu la gën a tal ay di tontonte ay wax d'accord defe naa tamit fee sonko nekk ku fa sa xarit nekk te nga ne sa xarit la di nga tal leneen pour dimbalee ko ko ba mu des toog ci biti di wax rek moom Khalifa Sall tekkaaram bi avant may ñëw ci Adji saar Adji Mass euh, tekkaaram bi mu def tekk euh, ci euh, bi ñu emprisonné Ousmane Sonko ba léegi loolu junj la wala wax la buy tekki dara waa xam nga tekk koo xam ne sa xarit la ànd ngeen militandoo ah, mu ngeen bokk ci benn coalition ñu tëj ko gisuñ ci benn yoon mu yee ci yàbbi. waa xam nga xam nga Khalifa Sall ak ñoom Ousmane sonk hmm. ak ñoom Bougane. bokkuñu politique. loolu seen politique yi bokkul nduroowul parce que Khalifa Sall sooy seet wax dëgg yàlla moom doon na fi lu ne. Hmm. mais politique bi ñu daan politique ñoom xam nga lu ci ëpp. yaa ngi dégg mooy comme nii mu koy defee moom. Hmm. ñun nag ñii comme politique biñ soxla yaakaaruma ni moom dina leen ko jox d'accord en tout cas loo noppi daal maanu nga ci d'accord te loo noppi neex na la ok man loolu laa jàpp ko d' accord Adjimas ah. xalifa euh, Sall nee na moom kenn du ko génne ci euh, par euh, coalition bi nga xam ne moom moo di yeewi askan wi te kenn mënu ko ci génne ndax moom dafa bokk ci ñi nga créé te kenn mënul indi frustration ci digganteem ak waa yeewi askan wi. waaw léegi ñu ngi koy wax tout à am na hmm. li nga xamante ne nii eh, defe naa ne apaiser moom moo ci war. Hmm. xam nga di wax di tontu sa bopp. Hmm. man amatuma bu ma xoolee sax lu ma war a wax. parce que ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko. déjà moom mooy nday mbiliki tey comme ni ma la ko waxee du tee coupe bi ñu laaj ki nga xamante ni moo jël pay mais am na benn instant boo xamante ne yedd yërëm moo ko gën mhm. parce que nit ki mën nekk yow ci abri bu toll nii ci ci euh, comment dirais-je mouvement bu mel nii yow nga taxaw di ci yokk dara ak di koy di koy indil ay détails ak ay frustration waxtaan dëgg ca la am na leen loo xamante ni c'est pas pour le moment ndax bu moment taxaw génn ci tali bi jotee dañuy génn ambiance bu ko moment politique jotee dañuy génn politique bu moment taxaw li nga xam te ne moo dem mañ gàcce ga yàggatul dara dañuy taxaw xool ku ñu neex ñu daal di koy votel kon fii defe naa ni dara jaratu fi xiiroo ak yow tekk tek Pastef fi lee ko waral de ndaxte fi mu nekk wëree wa dafa jëm kër waxi ma jëm jën taali wàkk man wax ki nga xamante ne nag moom moo di Khalifa Sall mm. moom en conscience tranquille en âme et en conscience tey bis toogee dina xam ndax Pastef tànkam ak loxoom ak lépp ma nga ca wala benn tànkam moo nekk parce que beneen tànkam ci biti nit a la gën a xam boppam xamala moo fi am dof-dof waaye kenn dof fi nit moo la gën a xam boppam parce que moom li mu joué tey ba waa Pastef fii ñëw taxaw bëgg a bavoué ki nga xamante ni moo di Khalifa Sall en une fraction de seconde te yéen ngeen départandoo dóorandoo li ngeen di dóorandoo tegandoo li ngeen di tegandoo ba à un moment ñu bëgg taxaw daal lay euh, tegee à côté yow il est temps nga taxaw poser la question qu'est-ce parce que defe naa ni ku deful dara doo dégg dara de waxtaan dëgg ca est-ce que lu muy lu waa Pastef di wax naan moom Khalifa Sall daf ñoo trahir moo waral ñu ne ko dàq nañu ci coalition bi moom it mu ko ba mu ciy dàq. ah moom moom bu déggoo man la bu duggee nit gën a xam boppam nee naa la dof am fi xam la fi am dof dof moom bu demee ba waa Pastef teggal ko argument yu mel noonu. Hmm. moom na xoolaat boppam d'abord bu fekkee ni moom en âme et en conscience. tey jii li nga xamante ni moo di conscience am may ne ko mi ngi ci biir kon mi ngi ci biir na jàpp ni mi ngi ci biir mais bu fekkee ni moom conscience am may ko nekkul ci biir mais mënut a a bokk ci biir loolu moom moo jërë posé. daa dem ci dialogue bi. moom laa lay expliqué. waaw dialogue bi la dem lan la def. dialogue ba la dem. lan la def. waaw. xam nga lan la def xam nga dialogue ba la dem. man am na foo xamante ni fu ma seen sama yëre noonu ci sama ginnaaw soppe. Hmm. sama soppe boobu noonu laa koy jàppee waxtaan dëgg ca la. waa Pastef ils ont ils ont parfaitement raison te le moment dama koy wax haut et fort Pastef stratégie bii mu ñii ñu def. Mm-hmm. man je suis entièrement ma d'accord. parce que loo xamante ne li nu doon xaar ay at di ko xaar ay bientôt ay ay weer ba daanaka desatul li nga xamante ni sax six mois foofu jar na xuloo. sàcc bu dul bu dul rëcc dafa jar a yàqi nelaw ki nga xamante ni bientôt on est en mois de quoi de d'août. Mm-hmm. bientôt août septembre octobre novembre décembre janvier en février mars plus tard cinq mois six mois plus rapidement possible. Mm. yaa ngi dégg ñu daal toog wóoree wa daal di jëm kër waxi mag daal di dem den taali te suul ker du teree feeñ ki nga xamante ne moo di Sonko kon ña ca ñaawoon tubaarikàlla bu nu bëggee ba ñëwaat dañ leen di fàttali leen defoon. mais élection yi wax ngaw léegi. Mhm. presque six mois moo ci des ñu dem. Mhm. Euh, euh, moom jëlaat na éligibilité ki nga xam ne moo di Khalifa Sall. Mhm. Euh, ñagas ñagas bi am ci digganteem ak waa yeewi askan wi te ñëpp xam ci primo votant yi nekk ci yeewi askan wi baa du yàqal xalifa bu demee élection yi baa du jël. bu ko yàqalee moom la mën na ba perte bu ko yàqalee moom la. ndax nee naa ko man duma doon la ma waroon doon. ba doon fa ma taxaw war fa doon dara. fekk fu def dara ma def fa di dara ba dara ji di daraja ba nit di ci coow daraja daraja ju ma ci am. ñooñu tax te taguma leen fenn du sotti. Mhm. waxtaan dëgg ca la. am na leen lu nga xamante ne nii nee naa ko safara kenn du ko teg si kaw sa safara dama koy wax ka waxaat gis nga waa Pastef li tax ñu bàyyi li nga xamante ni moo di rayante bi bàyyi xiiroo bi bàyyi ŋaayoo bi bàyyi defante bàyyi lépp pour yow dañu ragal pour yow dañoo amul ay arm génn ci terrain bi yëngal ko déedéet demewul noonu parce que fi mu nekk nii sàcc bu dul raw nañ téye jarta yàq yi nelaw c'est pour ça là ñu garder li nga xamante ni moo di silence bi mm-hmm. parce que xam na ni bientôt wóore wa jëm na kër waxi mag dem den taali bark war mbaam mais nit nag moom boo xasee jaay sa drapeau jaay nga ko mm-hmm. mooy loolu mm-hmm. parce que man man mënuma concevoir yenn affaire yii nit ki nga daal di koy gunge ba dara dul dara ngeen demandoo jugandoo daaneelandoo di tegandoo di dóorandoo ba yegg si fenn fii nit ki daal di nekk ci l'obscurité yow nga daal di taxaw ci biir structure boobu nga ci nga ci taxaw di ci di ci def la nga bëgg a def pour mën jàppoo ko woon d'accord dëgg yàlla moo ko moom d'accord mooy loolu merci beaucoup monsieur Dame ci fidélité bi ngeen am ci programme Feeling Dakar rawatina bi la émission di topp ka 19 heures moom moo jot ba tegtal 59 minutes on va continuer de plus en plus belle ñu bàyyi parti politique bi te ñëw ci people bi ñu démarré ko ak Sidi Diop Sidi Diop répond ses détracteurs euh, ñoo ngi may wax lu ñaaw di ma wax lu bon di ma gan di ma gàllu góose euh, di ma yàqal di ma sosal di teg sama der bi lu ñaaw waaye taxul ba euh, damaa mën a woy ñu bëri nag euh, euh, jimboor yi avant may ñëw ci Adjimass di wax que ni Sidi Diop dafay gaaral waali Seck ak waa Faramareen parce que soirée boobu li muy woy li mu doon woy yëpp dafay mel ni kuy gaaral Waly ak waa Faramareen ak Omoro mi nga xam ne jàpp nañu sax day génn yenn saa di dal ci Sidi Diop wala di ko yàqal parce que jël na fecc katam mi ngi ci kawam di di di di di ko wax wax yu ñaaw ñu bëri déggee ni kii di Sidi Diop soirée bi passé lim fa woy yëpp daf ko woy pour gaaral ko waa Wally Seck waaw ok xam nga kii jaaj naar di Diop buy buy wax mhm. waxi boppam la wax mhm. mais nit ñi ñoo ko jël yóbbu ko ci Wally Seck xanaam la Wally dafa am gars yi dañoo wër adversaire bu ñu ko indil moom Wally amuñu ko ñu xam ni Sidi fi sës ñuy jël Sidi di ko ko xëpp mais du combat sax bokkut. lu dañ bokkut bokkuñu ñoom ñaar Sidi woyam kenn werantewul ni euh, Sidi si boppam woykat la dañ ko ñaanal yàlla mu dund ba fi waali toll Sidi toll fa. mais Sidi nee naa la dafa am ñu ko jëndaloo fasu yaa biir te guble ko ko. waxaatal loolu. dafa am ñu ko jëndaloo fasu yaa biir te guble ko ko. Hmm. Sidi si carrière dafa am tuuti problème bu ci am parce que tey nga commencé première combat rek ñu ne la sa combat sa combat ak Eumeu Sène war naa mën a taxaw. Mhm. yow boo tëddee guddi yaa ngi dégg c'est que boo tëddee guddi nga toog xalaat di nga xam ne Eumeu Sène mii buñ la ko jàppalu la gàllaaj bu la jàppee daan la. am na wala amut ba pare xam nga tey lan mooy problème bi. Mhm. chaque jour ma wax ko xam nga tey dafa am ñoo xam ni. wax dëgg yàlla. ni mhm. waali mel damaa defe ne xëy na daf leen neexut. am na ñoo xam ne ni Sidi Diop mel tamit dafa daf pour man Sidi ni mu mel neexu leen mais xoola euh, ki noon bi nga xam ne non est-ce xam nga noon bi la bàyyi ak noon bi lay sexeel du benn. Hmm. noon dem na ci fexeel la siidi Diop su fekkoon ni ni mu commencé carrière yaram bu waali defee plateau mu dem bu waali amee soire yaa ngi dégg mu dem. yéeg way tuuti waali gërëm ko mu wàcc dem yoonam ku ko neex mu mu mu dem plateau est-ce que léegi mënati na ko. mënatu ko léegi kan moo ko dugal ci mu dem ba nga xam ni mu am fu xam ni mu am fu mu am yamukaay mais léegi leader la non xaaral wax la xam nga leader doo ko def sa bopp mhm. leader doo ko def sa bopp yàlla bindul benn pour nga def sa bopp leader gis nga baaraam bi gis nga baaraam bi gis nga mm. ni nga ko joxoñee mu neex nii soo ko bëggoon tourner sa fii day xaw a metti mm-hmm. leader kenn kese la mooy yàlla mm-hmm. lépp looy liggéey nga dem ba yëg si sa bopp ni yow leader nga ci mm. rek ku de ku yow ku waye di nga ci mais est-ce que du li Waly jiitee Ramdan moom Sidi noonu la jiitee 5 étoiles mat na li mu doon léegi mën na yem ci seenam. non bi muy dem ci Waly amul woon seen mun na dem. wóyul Waly waaw déedéet déedéet déedéet xam nga tey kenn ku si nekk. ñun ñëpp xarit lañ mais bëgg di jotee ku nekk tëdd sa nekk. Mhm. xam nga tey mun nga yam sa seen te wax li nga war a wax munul nekk am na wala amul. mais gaaral si. non xaara xaara non gaaral. mais ñëpp ko daan def waa xam may ma tuuti papa Thion danaan nekk kii ku ne du woon gaaral de. Ah? nit yi nit yi. waaw booba fan si club yi. waaw melul woon nii. fan si club yi ñoo daan jël affaire bi. kenn ku si nekk xoola dinaan mhm. xanaa déggoo sama waykat li mu wax kee la xanaa déggoo sama waykat li mu wax te terewul yuusu ak coon ak ak keneen ak keneen bu ñu waree daje dañ daan daje tay jii tay jii dañoo jël woykat yi def leen ay mbëru làmb mbëru làmb sax leen tane parce que dinañ daje signature bu ñu daanantee yëkkatante akola mu dem ma wax la benn affaire c'est que Sidi su woyee woyam xam nga daf ko way hmm. mais bu woyee wayam ñan ñoo ko jël tibb ko war ko ko war ko jox Waly Seck waaw parce que am na yenn way yoo xam ne su ma ko woyee dinañ ne jaañaar waaw xam lay wax non mais mais xanaa ah. am la ma wax la benn affaire. bul jaawale woy ak wax. ñu bari dañuy jaawale way xa jànnaar. est-ce xam nga woy dafa am wax am. Hmm. li nga wax fii du woy wax la wax. waaw way xam nga luy way. woy day fekk nga toll fenn fi mu am fu mu la jëlee am fum la yóbbu te du nekk ay gaaral tey jii dem nañ ba nga xam ne woy yéeg oustaz waaraate yeeg. yëpp hmm. hmm. ay tontu noonu. tontu noonu laa fi gis mais way gisuma ko. mais ci ñu bëri mais moom si li mu def waaye koy def si seenam. waaw waaye day mu leer la ni lii mu wax nii. kii la ko waxal. non non non da nga koy gis yeneen artiste da nga sama gis-gis rek. waaw waaw mais lay wax que ni moom si loolu mu gis nañ ko. ci yeneen artiste ma wax la dara. waaw waali bu defee loolu. yaa ngi dégg. Mhm. bu fekkente ne def na ko. waaw moom sax bu toogee xam na ni warta def loolu xam nga lu tax. yàlla jël na ko jiital ko ba pare ci way laa wax ci musique Sénégal actuellement nii nii nii nga bëgg nga bañ. yaa ngi dégg. waa Waly Seck mooy king bi. mais Sidi est-ce que tooñu. xaaral xaaral déedéet déedéet waxuma. waaw xaaral boo mel ni Sidi dama ko loolu dama lay laaj rek maanaam est-ce dafa gis ne injustice lañ def ci moom parce que jël nañ baat na yaa yóbbu Ramdaan. non non non mu mer wéyee noonu. waaw xaaral xaaral ma wax la xaaral. waaw sama gis-gis laay kii. waaw xam nga Sidi dama ko jàppee ni. Mm-hmm. ba tey moom xale bu ndaw la. Mm-hmm. juddoogul. yaa ngi dégg. Mhm. fi mu nekk tamit baax na mais su ma sañoon bu fekkante ne dafa way wayam. waaw xam nga jëmale ko si magam Waly sekk mhm. bu dee man maay moom loolu bu mu ko def. bu ko nit jëlee tamit pour yóbbul ko ko ci Waly sekk pour Waly tamit tontu ko. loolu tamit du ma ko digal Sidi. damaa ba pare ma wax la benn affaire. waaw Sidi ba ma ah, koy. yor naa ay questions yu forox ñëw ba may xam Sidi Diop ba léegi. man ba may xam Sidi Diop ba léegi. waaw musuma génn musuma gis Sidi jóob génn jaxaran. wax lu ñaaw. directement ci Waly Seck. waaw man mii dëgg Waly Seck tamit ba mu koy xam ba tey mosumaa gis Waly sekk génn wax ci sii Sidi jóob lu ñaaw mais wax yi paasante kan moo yóbbu ak di indi ak di paas. mais ñoom tamit dañuy def ci sew suuf de. waaw xaaral xaaral nga dégg ko ci. mais yu sew yi ci suuf. nit ñu sew ñi ci suuf ñoo koy ñoo koy jàllale defa naa quoi. mais dama lay wax benn affaire. waaw di ak Waly Seck. yaa ngi dégg yu garaaw laa lay non ak Waly Seck. ñëwal yaa ngi dégg. waaw loolu bokkuñ sax. mais mais am na ñu ne. Sidi Diop bu taxee woy ni damaa mën a woy pire. waaw ah. ñu bëri ne nañ dañ dañ dañuy waali mënul woy. dafa parce que moom nee na man xeex ak yàq ci yam man damaa mën a woy pire. waaw ah. sama papa du woykat sama yaay du woykat judduma ci famille woykat. waaw ah. waaw ah. ku moom wax jooju. waaw te damaa mën a woy pire. waaw waaw mais dam lay wax benn affaire. ay questions yu forox laa yor waaw waaw mais xam nga Waly Seck ku naan Waly Seck moom kenn du ko xool ne mënul woy. ah <laughs> Sidi di wax na ay waxam daal. noo waa xaaral ma wax la man duma wax wax di munul way. waaw mais Waly sekk munul way. Hmm. kuñ ko tey jii boo jëloon benn nit. ne ko demal ci télé bi wala ci rajo bi nga taxaw fa ni Waly Seck munul way nit ki même bu nekkoon noonu Waly du ñemee wax loolu. ah def quoi. non man kay pour man man laa wax de. Hmm. sama gëm-gëm nag laa lay wax xaw ma nag leneen pour man Sidi mun na way mais Waly dafa dépassé sax mën a way. mais est-ce mooy xeexee euh, Waly ak Sidi non xam nga ah, Omaro Omaro moo ñëw jël baana yaa yóbbu di wax ay naan waykat nii la war a may waykat waroo sol ay daal daal daal daal a sol ay pantalon di gaaral Sidi Diop est wax dëgg yàlla day sóobiis hmm. lu def noonu day day tax lépp lu muy def yëg-yëg am ci soo gisee wala xeex. noo est-ce que mooy xeex Umaro non xaaral Umaro bi ma xamoon bu njëkk ba. Hmm. dama gis mu da loolu daf daan xeex. waaw mais lii Umaro bii ma gis man damay wax sama dëgg ak su ma xalaat daal. ak li ma ko gisee hmm. Umaro buy soo biis la. mais Umaro dafa dem ba nga xam ni ñoom euh, ñu ci bëri jaasi lañ ko bëgg a def lu mu wax rek ñu jël ko teg ko ci ndodd kenn ne diw lay rendi Omaro du wayul waxkat la waxkat. waaw day ñëw wax yaa ngi dégg yow bu waxee yow waykat bi tee ngaa way bañ a bañ nekk waxkat yow tamit. ah dee waxkat bi day wax di gaaral bi wa non ah. waa léegi waykat bi waykat bi. xam nga tey ma wax la benn ma wax la benn affaire gis nga ah. am kuy yàgg a jóge Murtani warta tax muy yaafus bay ànd ak i bay. Hmm. man bu ma ñëwee ñu xamee ma way way rek laay def am na waykat bu ko way waya ma war way rek laay def. way laa juddoo way xoola bu yamee ci woy rek dafa neex day tey jii boo concentré woo gis ko mu concentré wu ci waxam boobu rek moom hmm. sa yaram day daw mais tey bu nee woy laa juddoo way laa nangam woy laa nàmp hmm. nga jékki-jékki nga gis ko muy wax yaa ngi dégg nga gis ko muy wax hmm. yaa ngi dégg ko kee waykat bi na def li ko war waxkat bi def li ko war d'accord mais Waly jënd la Ndeye Ndiaye yaa oto Ah, eh, eh, Sidi eh, Sidi Diop soirée bi mu mujjee def taskatu xibaar yi laaj ko ba Ndeye du la wéetal Sidi ne man yàlla rek laa yaakaar kenn du ma wéetal. Mhm. comprendre nga. Mhm. Sidi ñu wax ko ñu naka ñu ñàkk ko wax. Mhm. Banaya na mu fa jógee neexu ko. ñu xëy suba ñu ne Wally jëndal na oto Ndeye Ndiaye Banaya. ah Sidi waa du affaire a métti. ok man ni Wally moom fi mu ah, baax na teraanga la. mais nay fàttali bi nawleen bi ci wet gi moom it nag. ah waaw non xam nga jëlu ko daf ko teral. waaw dafa jël Ndeye mais teral bi est que am na ñu ne teral bi wax la. waaw xaaral ma wax la xam nga tey. sama saar gi dañoo dégg ba yàq ak ñeneen ñi ñi may dool léegi yooyu mais ne ndax ndax ndax ndax jëlu ko de daf ko teral am na wala amul nday njaay am fu mu jógee musuñ ko teral mais ndax sii di dégg na lu nday njaay wax ci moom ñëwal ah <laughs> ñëwal dama ne hmm. sii ndax dégg na lu nday njaay wax nday njaay nee na xam na lu bëri si sii di mais du ko wax loolu lu rafet la. loolu suite la sax ñëwaguñ am am lu rafet la am na wala amul. mais bu fekkente ne kee jóge na fi dem yow gëmal yàlla rek nga toog liggéey liggéey liggéey bañ a tontonte wala. Hmm. du noonu. eh mais daa métti nga yar sa xar ba màgg mu jékki-jékki dem feneen. amul woon dara foofu fi mu nekkoon dem fee rek ñu ñu ne ko jox ko mais kon sa moom kon sa buum baaxul woon. ah buum gi de mooy xaalis bi dama ne. <laughs> su fekkee da yor sa xar ba mu màgg. waaw yaa ngi dégg. nga jékki-jékki sa xar dem. ma wax la benn affaire. wax ma xam nga xar mu daw. soo ko yeewee ba déwén il faut da ngay changer buum bi parce que day nekk kuy. waaw ndey njaay bànne xaw ma. ak kull fu mu mun di nekk yaa ngi dégg mm-hmm. am na lu mu soxla ci boppam am na loo xam ne bu ko weesoo weesu na ko lii ñëw ci kanamam bu nekkee xale di màgg ni muy màggee noonu la xel mi di màggee muy am bëgg-bëggi boppam d' accord d' accord amul choix. d' accord d' accord d' accord euh, euh, euh, Adji Mass oui Sidi Diop soirée bii mujj ñëpp ne nañ Sidi moom daa jël répertoire am répertoire am yëpp tegee ne wëy yi mu doon wëy ci scène bi yëpp ne nañ da doon gaaral Wally Seck ak waa Faramaren musique noonu nga déggee wala. gis nga jàññal waaw. tey moo wax la benn affaire ci li nga xamante ni moo di ci Sénégal gii. wax ma lépp lu amul concurrent neexul. waaw loolu dëgg la gis nga Wally day show. kii nga xamante ni moo di Sidi Day Show. Mm-hmm. tey tamit way wuy te way wuy këpp gaal. kenn du ko way ci li nga xamante ni moo di tefes. Mm-hmm. am na loo xamante ni c'est terre à terre pour man. parce que gis nga wax ñime ko dem ci brusquement wala nga arrêté ma loolu la gëm. Mm-hmm. parce que am na leen loo xamante ni mënuñu ko gis vis-à-vis. di wax de midi à 14h te teguñu fi dara. man du ma ko def. parce que am na leen lu nga xamante ni way wuy këpp gaal la dafa ci kaw tefes di ko way. si di am na leen loo xamante ni nee ko c'est pas pour la maman xam nga Wally Seck may bi mooy may njaay otom bii. waaw ak nit ñi naan jëluñu ko. nen xippi seen bët xam ne li teree xam dafa yàggul man am na leen loo xam ne sax dama ko waxee danaan li ma jegee nangam ak nangam déedéet du ma ci ñëw. Hmm. mais boobu ba léegi je garde mon silence te dinaa ko gën a garder mais dinaa la ñamal tuuti. pour nga xamante ni tubaarikàlla fa nu jëm dañ koo ñeme. ñamal waaye waaw ñamal man nag ba bële maa. la rek. ñëw rek ndax ndax xam la tax ma la ko. Hmm. mais Sidi da doon gaaruwaale directement mais nañ ko wax. Ah, da doon gaaruwaale. Sidi da doon gaaruwaale directement. ah waa jërëjëf waaye kay. man man lii laay bañ. ah jërëjëf nit nan ngaa ah, taxaw man lii laa dégg de. lu mu metti metti man damay assumer. man lii laa dégg de. gaaruwaale parce que gaaruwaale weesuwul. xoxotan nañ ma sànni nañ ma xaw ma lan lan di ko def noonu may sosal di ma yàq. waaw kay. waaw yaa ngi dégg. waali toog taxaw xëy jël ki nga xamante ni moo di Ndeye Ndiaye Banaya terale li nga xamante ni moom moo di oto doole doxul jàmm <laughs> gis nga man damaa bëgg damaa bëgg gis nga lii moo tax man duma ma gaaw wax <laughs> parce que lu mu metti metti du ma ci seet aucune damay taxaw wax au but mooy loolu parce que Ndeye Ndiaye Banaya d'abord li nga xamante ni dafa dem ba mu taxu mu fipp heureusement ba nga xamante ni l'intéressé ki nga xamante ni moom moo subir les conséquences subir les engagements subir tout taxaw na osé taxaw dévoiler tout man loolu moom moo tax nee naa ko ma amoon lu ma ciy wax duma ko ci wax waaye dinaa la xamal tuuti lu bariwul xam nga dañ ne Ndeye Ndiaye kenn jëlu ko hmm. tout à leer na nañ mais Ndeye Ndiaye jëlaguñ ko de mais dama lay wax benn affaire lu teree xam dafa yàggul lu teree xam dafa yàggul nit ku ci nekk ku la jox li nga xamante ne moom mooy say tànk defe naa ni yoon bu la jaar la lay xooloo ki la abali bët fu ko neex ngay xool waaye ku la jox oto autoroute bu ko neex la kay la kay jaalale nan déglu wax ji nag man Adji Mass man maay wax ak yow am na leen loo xamante nii waxtaan dafa nekk dëgg ba nekk dëgg gis nga lépp lu amul concurrence baaxul mais na nan nan leen koy concurrencer rafet mais am na leen loo xamante ne du wàllu li nga xamante ni moom moo di réel du wàllu li nga xamante ni moo di Baay Faal man en tant que góor duma gaaruwaale góor réel du gaaruwaale góor réel boo ko nekkee doo gaaruwaale kii que ce soit am nga lu la metti tu passes à une autre chose mais pour lam di duut ay di di ruux ay wax di daw. nit booy wax da taxaw wax li ngay wax mu leer. man ma bëgg nit ku dëggu. mais ci seen lay waxee. artiste moo tax moo tax xoolal li gën a neex. waaw xam nga dafa taxaw ci seen nee na yaay dafa dafa ruux dafa ruux xam nga dafa ko ruux. wax ji moom ñaari nit ko moom Wally ak Omaro la. waaw dama lay laaj waaw. loolu bu leen neexee. wóoyam yooyu mu wóoy moom Wally ku ruux wax daw. jël wax sànni du benn. dafa ruux ay wax waaw yaa ngi dégg la lan demee ñu taxaw tubaarikàlla tegal ko tegal ko ni ko ku mu ni ko ku ko mën nii la koy defee. <laughs> waay ay waay bu naa def. yaa ngi dégg. gis nga nit ki ci boppam. am na leen loo xamante ni nii boo ci demee ba nekk ci bul nax li nga xamante ni moo di sa bopp ndax fii kenn moo mën muy muy jëletat ne la tout puissant ki nga xamante ni mooy mooy rabbi samawaati wal ardi. Mhm. kooku moom mu fi nekk amul keneen gis nga nit ki da ngay fier. Ndeye Diagne est-ce que nekkinam biir. Euh, euh, ci ci seen waal yi euh, neexoon na dafa mel ni def dafa doon souffrir dafa mel ni nekk foo nekk bu bien ci côté fay. ndey njaay daal lu ci mënti di am wax na ko neen daan na jàppante ak Sidi. ma ni la ci nekk ba sax ba ci payoor ak yooyu. ba ñëg daa dafa métti ci moom. ko ba ñëg la am ñoo dëkk déglu parce que yéen yéen c'est que man ni may déggee ngeen dul déggee. man bu baax parce na nee na moom soutien de famille la. Mhm. il temps mu xoolaat boppam pour dimbali ay waajuram. ah waa ànd ak nekk ak Sidi Diop nekk il faut mu xoolaat boppam bu dimbalee wéjuram kon fi mu nekk mënu faj dimbali wéjuram wax ji dégg ngeen ko waaw bu baax mais dama lay jaay kon payoor foofu ne nooyul woon dama la bëgg a benn mbir hmm. mooy xool du om ban koy bës neel première deuxième fois hmm. am na lenn li nga xamante ni sama maam nee na nit boo xamul looy jar dan lay leb kenn du la fay boo demee ba xam sa njëg ñu la koy bëccëg juróom te doo ko bañ am na mbir fu muy toll nga génn craqué dévoilé lu toll nii ci réew mi parce que tu as mal gis nga ñun artistes yi man lii moo tax man je le dis carrément j'ai pas froid aux yeux mhm. ay gayen yu baax laa am di ma defal lu ne mais pour mariage pour le moment mhm. man maa ko stand by parce que xamal moo tax mhm. toujours ñoom dañuy foog ni ñun ñu nekk ci télé bi ñun ñu nekk ci show bi toujours ni ñuy taxawee di dund ni suñu biir néegu sëy yi bu ñëwee loolu moom moo fay nekk ba tax na ci ñaari parti yi day sans mu nekk blanche mais day toujours day am am na leen loo xamante ni gis nga boo ma dégloo rek jaañ naar xam naa bu baax li ngay wax nandite bi nga jàkkaar loolu ah, leer laa lay wax am na leen lu nga xamante ni nii hmm. Ndeye Ndiaye bu taxawee de jël oka jël li nga xamante ni moom moo di engagement hmm. protéger ki nga xamante ni moo di jëkkëram dégg ko benn yoon moo wax lu ñaaw en plus mu ni Baye Fall la bokk na ci ñi ko defar c'est parce que foofu bëgg na Baye Fall bi nekk ci ayam jàmm nekkal ci famem jàmm nekkal ci entourage am jàmm nekkal ci ñëpp jàmm. donte bëgg na ko moom moom tamit moom tamit mu daal di tamit wax dëgg daal la retiré wu ci loo xam ne moo ko gënal diglul bu baax li mu wax ngir sauver ji li nga xamante ne moo di intérêt mm-hmm. te ma wax la benn mbir nag. Mm-hmm. amul loo xamante ne nii man démb Ndeye Ndiaye ba ma waxee dama tiit ndax li tax ma daal di tiit mooy Ndeye Ndiaye ci boppam mi ma xam man. nday njaay mbaa xam nga ni dafa yaru chaque jour dama la koy waxaat faale wu ma nday njaay nday njaay mayu ma fukki dërëm barke Cheikh Abdou Karim fayelu ma sama kër man ak moom tolloowuñu yëreem jotuma li ma nday njaay mais dëgg bu jotee nga xam la personne seedeel kooku ku la ko wala kaaramunal wàññiwul dara gis nga may taxaw fii di ko protéger ñu bëree ngi ñoon taxaw di di saaga mais démb lan moo tax ba mu defee sotti sénégalais ñëpp di jooy mm-hmm. parce dafa taxaw génn wax li nekk ci moom. dafa metti lu dëggu la wax ba pare yii amul sens yi c'est des c'est des choses yoo xamante ni c'est am na mbir moo xamante ni nii ñi nga xamante ni ñoo ëmboon showbiz bi buñ ko jeexalee woon nii defe naa ne showbiz bi dootul amati sens jeexale wuñ ko nii kon ñoom bu nangu ñu koy jeexalee nii waxtaan dëgg ca la. d'accord nak nag fii benn kii moo fi am. muy l'éternel la tout puissant. suñu borom subhanahu wa taala mooy seet ku ko neex mu def ci moom favori. seet waali ba mu doy ko mu def ci moom favori kenn mënu ci dara. d'accord seet Matar job suba teel ba mu nekk ko def ko chef label production bu suba teel musique sëtu la Diop Diop bi Diop ba Ali Rokhaya Ndiaye Tengiru Diop Laati Sarr mu nekk nag taxawal. mu nekk réel boo xamante ni yëfu seytaane doxu ci gis nga ko. mooy hmm. def yëfu seytaane sax lay weer toroxal la. Hmm. kooku man loolu moo ma neex ci moom am na benn barrage boo xamante ne teg na ko ba nga xamante ni doo amoo fa porte boo xamante ne da nga ñëw di yàq faramaare ni ma la ciy bàyyi man loolu la ma maxtaar neexee gis nga mbir am na fu muy toll foo xamante ne nii ay frère la ñu moog di Diop tey jii bu Wally Seck amee ndam tey Sénégal moo ko am bu Sidi Diop amee li nga xam ne moo di ndam Sénégal moo ko am c'est très bien nag ñu def concurrence mais na concurrence bi rafet te Ndeye Ndiaye nag elle a ses raisons ci ay droit am la toll parce que nag trop c'est trop dafa métti. il fallait que mu wax génn craqué lépp lu nekk ci moom dégagé parce nag trop ya on a assez. ñun dañu doyal. moo tax dañu doyal moo tax nday ñaay ni mu def rek moom moo koy faj. Mhm. dañu doyal xam nga nit ki des def dara sax te la gënal. Mhm. mais da nga sës ba ci miir bi. te xol du om ban koy bés parce que dafa am ñoo xamante ni ay baadoola nañu bëgguñu ko baax bëgguñu am adversaire bëgguñu nit kuy développer lu baax bëgguñu dara chaque jour dañoo foogante ne ñoom ñoo war a nekk pour éternité c'est pas ça la vie nit ki da ngay am joli cœur nit ki dangay am esprit sain nit ki da ngay baax nit ki da ngay vrai nit ki da ngay juste nit ki doo nekk false d'accord jërëjëf euh, lii tamit bokk na ci hmm. sàppo yi nga xam ne war nañu waxtaanee muy xaaral xaaral tuuti hmm. xam nga démb ah sa téléphone baa <laughs> nga démb euh, affaire oto Ndeye Ndiaye. waaw Ndeye mhm. wax na lu am solo. Mhm. yaa ngi dégg xam nga wax na lu am solo. Mhm. parce que boo nee man dama bëgg ñu jéggal ma naangam nangam affaire bi affaire affaire lan la woon démb du affaire oto. oto waaw. xoola euh, affaire oto lañ doon wax de. Hmm. mais lu nekk après du gaale ji. gaale ji waaw. parce que Ndeye bu bu fekkante ni nit daf ko jox oto def na lu rafet mu ñëw wax ni diw jox na ma oto rafet na trop mais ci biir ci biir bi muy def émission bi. def ci dugal dafa émission affaire bi dafa nekkoon dix minutes Ndeye yokk ci trente minutes te bu nekkee dix minutes war nga mën a wax sept minutes ki la indil oto bi wax 3 minutes mu yem ci 10 minutes yi mais après li ci dugg ci biir oto bi moo bëri. Mhm. Mhm. Sidi Diop dugg na ci. Mhm. jëkkëram dugal na ko ci. yaa ngi dégg. sam jox dugal na ko ci. yooyu yëpp gis nga man bu doon maay moom wax bi gën a rëy wax bi mu wax mooy réccu bi mu réccu ba pare jëlal boppam ni moom dafa jëm ci yoonu mbaax te loolu la fas yéenee dem. mais le fait yow nga dem. Mm-hmm. dugal si ay yeneen affaire rek dugal ci yeneen affaire yaa ngi dégg mm-hmm. affaire boobu su fekkoonte ne man maay ndey njaay du ma ko si dugal mm-hmm. dugal si ay sama jëkkër ay sii di Diop xam naa loo xam ne xam naa lii dafa dem sax ba oto bi li taxoon ñuy wax muy oto bi après sax dañ fàtte oto bi mais moom dafa mel wax na ko ci émission bi nee na comme deux ans ngi ñuy waxut Balla profité wax li ma waroon wax yëpp waaw mais mais dama ne. xam nga tey. su fekkente ne ku nit jox na la. ku la jox. waaw ku la jox rek ku rëy ci yow la. man bu doon man maay moom duma jaawale bisu ki may jox ak bisu bi ma war a wax. Ah, ñaari format démb dafa rëbëjal lu bokk. Hmm. mais xay na tamit communication nit léeg mu mën ko léeg du ko mën. Hmm. xam nga tey bisu ku la jox. Hmm. ki la jox. am na mérit yow mi nangu tamit am nga mérit waaw du dëgg loolu teraanga la. Mhm. mais gis nga bu doon man maay moom démb. Mhm. jël bi laay jël ki ma jox laay tagg yam ci loolu beneen bis ma ñëw yaa ngi dégg. wax li ci tegu lépp. d'accord mais tontu yi mu tontu di Diop nag ne ko euh, xamal naa la euh, te li ma la xamal bari na trop euh, jot naa sa accusation nag ci ni ngeen may traité que ni ko tout pour nous là. Euh, moom Ndeye euh, mu wax kàddu yooyu ki nga xam ne moo di Sidi Diop euh, yan àngan ngam ci jàngat yoo wax. non xam a tey Sidi Diop. waaw bi Ndeye Ndiaye amee problème bi. Mhm. man Ndeye bi mu amee problème bi. man Ndeye Ndiaye laa faral. parce que jigéen xanaam la benn sëru jigéen mooy ëmb téeméeri tuba yu góor. Mhm. képp ku yàq benn jigéen dañ la war a dóor téeméeri yar waxuñu ku ko ku ko tëddee. ma wax la benn affaire encore mhm. man ndey Ndiaye bi mu amee problème moom laa faral sii di Diop tamit bi Ndeye Ndiaye amee problème sii di la Sidi Ndeye Ndiaye la faral mhm. encouragé Ndeye Ndiaye yaa ngi dégg mhm. léegi lan moo tax mu dem ba Ndeye Ndiaye mu dem ba Ndeye Ndiaye génn ci problème bi ñi doon tooñ Ndeye Ndiaye fa ñu ne di dem nekk fa bàyyi fi ñeen fi mu nekkoon moom nit ñi ne fa démb fi nit fi Sidi nekkoon nit yëpp a fa nekk bëri nañu fa nekk waaw di soutenir Ndeye mhm. moom bu fekkante ne Ndeye dafa nekkoon ci jafe-jafe boobu moom mu jàppale Ndeye ba tey ñu fàtte loolu. Mhm. am na wala amut. Mhm. bu doon maay moom damay continuer li ma doon defal ndeynjaay bu ñu yàlla tàqalee ma xam ne tàqale nañu. mais nga jàkkaarlook sa moroom nga ne ka yow kat jéekatu porno nga wala nangam nangam affaire yooyu. yaa ngi dégg te yow bi mu bi bi jafe-jafe bi amee yow yaa ko doon jàppale pour man rafetu mm, gis nga sénégalais nag dafa am problème boobu tey jii est-ce que xam nga bu ñu dajee woon nii man ak yow. ñu daje rek ma tukki dix ans su ma la gisaatee fi nga yamoon laa lay fàttali damay defa ni fa nga yam ba tey sénégalais moo demee noonu. évolution ok non non du def xelam ni yow war nga mun a romb foofu parce que tey su fekkante ni ñu bëri dañu bëgg a téye ndey njaay ci ay affaire vidéo boobu wala yu kenn xamul comprendre ngi li ma la wax. Mm-hmm. ñooñu bëgg ñu jàppale ndey njaay parce que gis nga nit saa bu tuubee da ko war a tuuble. waaw su nit tuubee da nga koy tuuble tuuble mooy lan nga fexe ba li mu tuub nga bañ ko ko fàttali. képp koo xam ne da nga yoroon vidéo boobu xoola danga war a taxaw boo gisee ndeynjaay tuub nga tuuble ndeynjaay mooy nga effacer vidéo bi. Mm-hmm. am na wala amut. Mm-hmm. parce que koo gis mu koy wane rek. fekk mm-hmm. na bokkoo ndeynjaay dara. c'est mais boo bokkoo nag moom dara doo téye mbir mi di wane. du dëgg. ba pare benn affaire la kii. boo ko gisee moom juddoogul juddoogul si xottu nen bay dem nit nag lu mu gën di màgg xel mi di màgg na pexe bal démb loolu mu wax yal na ko yàlla defal mu def ko te na ci nekk mais moom lu muy arrêté carrière nii man analyse analyse bi laa ci amee est-ce que du li mu bàyyi ci Sidi Diop euh, dem ci seen waay la dara jaaj naa waaw dama jàngat la xaaral am na mbir moo xam ne waaw waaw Ndeye Ndiaye démb waxam dafa am occasion waaw moo tax mu mu craqué wax lépp li nekk ci moom mm-hmm. gis nga wax dafa jooy ñu ni ko looy jooy mu ne dan maa wax te waxtu ban ma waxtee baaxul mm-hmm. ñu wax ma fan ma war a waxee normalul ñu wax ma ci ñoo xamante ni waruñu ma xama mm-hmm. démb bu demee xoolul dara gisul dara mu daal di waxee noonu parce que ku ci nekk doon for ci wewu bay ku ci nekk doon for ci wewu bay te xam na bu baax a baax li nit ñi doon xaar mu génn mais day déchargé wu day vide wax li nekk ci moom moo tax c'est normal day laal pàcc yépp pàcc yi nit ñi doon xalaat xalaat nga ko xalaat naa ko ñi ñuy seetaan ku ci mel ni ñun xalaat na ko. waxtaan dëgg ca la. nit la mun ta su nit c'est très normal mu daal di wu ba mu ba nit ñi xam ne du malax du baadoo la du jaam du dof nit la Ndeye Ndiaye dafa fees c'est très normal mu daal di décharger wu man am na leen loo xam te so duma ci bëgg a sori mooy loolu ndax boo waxee ñu dafa farfarloo wala nangam ak ki nangam man dépassé naa fu may fayee. ñi ñuy fay xam nañ leen man kenn du ma fay man sa liggéey sa travail dur gagne ma vie ma man kenn du ma fay ma yàq nit wala may défendre nit xalaatuma ko sama ngor gi mayu ma ko sama deret dafa diis mais mbir am na fu muy toll gis nga dès la début moo ma taxawee di défendre bu may taxaw di xool commentaire damay gis saaga démb lan moo tax sénégalais doon jooy parce que sénégalais kan lañ yërëm kan nañ kan nañ bëgg ku ñu yërëm parce que démb dafa wane li nekk ci moom te ne Njaay bu waxul nee naa ko képp kuy taxaw di waxaat ci Ndeye Ndiaye sax di nga rulé la langue d'abord parce que neenaa ko déggoo mu ni man bonu ma te ñu te man dama baax te ñu baax ñu gën a sonn effectivement effectivement am na leen lu nga xamante ni nit du kenn du ko sës ba ci miir bi nañ arrêté close te xam ne nday Ndiaye dafa am famille Ndeye Ndiaye dafa am ndey Ndeye Ndiaye dafa am baay yaa ngi dégg boobu ba léegi yàbbi ko te doomu jàmbur la yaa ngi dégg mm-hmm. def na li mu war excusé wu na devant tout le monde. wax na li ka neexal li ka naqari. Mm-hmm. nan close ki nga xam ni moo di Ndeye Ndiaye. ndax nag xol du om bañ koy bës te yaayam. Mm-hmm. mérité wul lii waxtaan dëgg ca la. d'accord baayam mérité wul lii waxtaan dëgg ca la. Mm-hmm. te moom en personne mérité wul lii waxtaan dëgg ca la on passe à une autre chose. mais yow jàppee bi mu jël teel a arrêté carrière am ni c'est pas. déedéet wul. mais moom moo ko wax dafa dafa toog stand by c'est ça veut dire ni. Mm. day nit ku ci nekk déggoo ñun la reculer pour mieux sauter booy dem ba mu yàgg. too fu nga jëm wala fa nga jëm xamoo loo fay fekk. Hmm. it c'est très normal nga daal di dellu fa nga jóge ah. ba xool chemin bu jub. Ah. ba xool chemin bu réglé ba xool oto bi fan la ko jaarloo. est-ce que solution moo am. ba xool oto bi fan la ko jaarloo déglul. waaw ba xool oto benn la jox fan lan la ko jaarloo. nga jaar fa yéegaat ci chaîne bi. wax nag wax la nag. dégg-dégg la laaj. waaw Ndeye Ndiaye xam nga ne doo attardé wu des choses jël engagement yi toll nii te nit du ko téye waxtaan dëgg ca la am na ni nan téye waaye ngir yàlla. am na leen loo xam ne waxuma la ñu fixe ko toujours de wala ñu jël ko hmm. mais de toute façon leen de xamal naa la ko man maa la ko wax fii tey adimanche jàppal te man lu ma la mën sa wax samay proposition rek da ngay dox ba taxaw ba taxaw ci proposition yi mal tegal nday njaay moo xam muy tey moo xam muy suba hmm. nday njaay bu ko neexee tey tey day demaat fecc ci wàll kenn du ko gindi nday njaay ah même bu ñu koy teg ci pan bi yaa ngi dégg ah muy am li nga xam te ni cachet hmm. mbaa xam nga leen cachet day ñëw nice tey man maa la wax lii tey lu tuuti nag laa ñamal d' accord jërëjëf émission bi jeex na 20 moo jot ba tegtal 28 minutes jël nañ sax euh, minute ci yeneen sunu la yi ngi war a yéeg ci euh, ci plateau bi jërë ngeen jëf mbokk yi xarit yi ñu doon bàyyi xel yëpp c' était Top Cas et vous donne rendez vous incha allah jeudi prochain merci Jimbo Grady. waaw jaaj na la yàlla defal jàmm. amiin mooy nuyu téléspectateurs yi mhm. nga xam ne ñu ngi ñu doon seetaan. Mhm. di nuyu suma grand Abdou Aziz la Abdou Aziz la ak euh, aw Mbuub sama mag yi bopp. Mhm. Amin Ndiaye xam nga. ak euh, petit papa. Mm-hmm. Camara Mbay yaa faat taal xam nga suma rakk boobu. Mm-hmm. maa ngi koy nuyu bu baax nekk Suisse xam nga di nuyu Abdou Kool. di nuyu Aziz Kor di nuyu suma xarit yi daal di nuyu kullu nag ku may bégge macha allah ku ma yëg ak ku ma yëgul macha allah macha allah jërëjëf Adji euh, di jeudi mm. nag dëgg neexul fii ci Feeling Dakar rawatina ci toppkaa tubaarikàlla di wax di rek saa jubee ci sunu borom bi la saa bu dëngee tubaarikàlla ci man la tubaarikàlla lépp lu fi baax yàlla na ko yàlla sotti ci askanu sunu gaal mu nekk ay ngëneel ak i mm-hmm. ak ki baax baax ki tubaarikàlla ak i ngëneel mm-hmm. téléspectateurs yi ñu toogoon di ñu seetaan béggi bu baax a baax sama soppe yi mhm. sama mbokk yi xarit yi am di jàmm awma seen fay fa mhm. tubaarikàlla nee naa ko damay foowee mbedd mbir sax la ñu def ko ampleur di ma ci teral ci seen yéene seen jëfar seen jàmbara seen jom awma seen fay waaye ki nga xamante ni moo di Ami Ndiaye mhm. la présidente du groupe Feeling Dakar maa ngi teg nuyoo bi ci loxo mu séddale ko groupe gépp te di ko wax Ndiaye Talla Bakar Koddo tubaarikàlla peu de parole peu de ko déggatee yow lañ ko sa jàmm yàgg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 yaa ngi Dakar di nga am info yu leer